asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di ñaan màggalu Kazu Rajab bii ñu dëgmal sunu boroom yóbbu ñëpp ci jàmm delloowaat leen ci jàmm nangu ñaan leen fa ñaan yëpp te def ko ay xéwal tuur ko ci àdduna bépp donc tey wàllu xew TV ñoo ñëwaat di leen indil beneen vidéo beneen histoire boo xam te ni sunu sœur encore une fois moo ko dund parce que jigéen ñëpp suñuy sœur lañ suñuy yaay lañ suñuy tante lañ et cetera alors tey suñu wax sax du bëri parce que histoire bi dafa xaw a gudd mais ñu leen di ñaan ngeen diglu ko attentivement diglu bu baax li nga xam ne moom la soxna si di wax te moom naqaru xol bi mu am kilifa gu mag moom moo ko teg naam sax turam du ci mën a feeñ parce que loo gis ci àdduna sutura def ci baax mais histoire bi bu koy partagé c'est juste pour yee yeneen moroomu jigéenam yi nga xamante ni si nii soit ñu ngi dund lu mel noonu wala un jour mën nañ dem ba kenn ñëw di leen proposer lu mel noonu su ko defee buñ déggee vidéo bi dinañ xool bu baax fan la ñu teg seen tànk ñu leen koy ñaan nag képp ku jot vidéo bi nga partage ko parce que histoire bii nii man lu tey laa njëkk dégg lu mel nii yàgg naa ko dégg te d'habitude ñi koy def ay kilifa yu mag la ñuy doon ci réew bi mënuma leen sax tuddee kilifa parce que kilifa dëgg-dëgg du def yu mel nii mais maanaam ay kilifa lañ leen di jàppee. ñu mbuboo turu kilifa boobu noonu di jaat suuf di def la ñuy def donc yéen suñu sœurs yi ñu ngi leen di waxaat encore une fois lépp lu ngeen di dugg na leer ngeen xool bu baax fi ngeen teg seen tànk bàyyi leen ku ñëw rek présenté wu rek ngeen jël seen confiance yépp jox fu mu leen woo ngeen wuyu ko lu mu leen wax ngeen def ko alors pour ñu bañ a guddal introduction bi comme débat bi dafa xaw a gudd ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu ko kenn ku ne nag soo dégloo vidéo ba pare xalaat boo ci am ñu ngi leen ñaan ngir yàlla nga def ci commentaire yi wala nga envoyé ko audio numéro bii ngeen di gis muy affiché moom mooy suñu whatsapp donc ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu vidéo bi ñu jaaree foofu noonu tàggatoo ba beneen vidéo incha allah. waaleykum sëñ ci sant bu baax a baax alhamdulilah waa maa ngi tuub di jégalu ci tardement bi dama doon xaar kër gi xaw dal tuuti ma mën waxtaan ak yow bu baax di wax sama naqaru xol. ak naqaru xolu bépp jigéen boo xam ne mi ngi ci kaw fii ci suuf di wax suñuy naqar di wax tamit li ñuy nëpp nëppal ñu war ko yëkkati ñëpp yëg ko wax ko ñëpp dégg ko parce que li ñuy nëpp nëppal dafa ëpp ñun jigéen jigéen a ngi toog di xëy am malaise dee wala leneen ak leneen ñun naan dee na wala nangam fekk lu ko rey mettitu xol kese kese moo ko jigéen dafa sonn di wax tamit góor ñi ci réew mi def naka am na ñu am nañu yaay jigéen a leen jur am nañu rakk am nañu yaay mais li ñuy def xale yu jigéen yi dara dara rafetu ci dara rafetu ci. parce que am na benn série ñu naan ko euh, maîtresse un homme marié film boobu ñi ngi koy tere naan bu ko kenn teg mais pourquoi ñu koy tere am góor ñoo xam ne dañ koy bëgg interdit naan bu ko kenn teg ku ci nekk gis nga ci sa bopp ku ci nekk da nga gis épisode bu daw muy jigéen muy góor boo ko seetaanee gis nga ci sa bopp man moom dama ci gis sama bopp bu baax muy ci lan muy ci premier épisode parce que premier épisode j'ai vu que Marème Cheikh Ndiaye da ko doxaan yóbbu ko biir këram kër jabaram bi muy sëye yóbbu ko fa nekk ak moom ci yenn fànd yoo xam ne mënuma ko wax nekk ak moom ba pare jabaram ñëw mu mel na musul xam Marème mu mel ne musul gis mareem pourquoi loolu pourquoi góor ñi bu ñu la bëggee bu ñu bëggee naxtaan ak yow bu ñu bëggee tëdd ak lu ne la def ngir nekk ak yow te duñu xool duñu xool ni am nañ jabar duñu xool ni yow seen moro seen moroomu doom nga xool seen moroomu rakk nga duñu xool lenn pourquoi loolu xale jigéen yi di ko souffrir muy metti seen biir xol te duñ ko mën a wax ndey duñ ko mën a wax baay duñ ko mën a wax papa duñ ko mën a wax kenn kant kanta sama kaa moom dafa metti lool damay dund lu metti di dund lu naqadi di dund loo xam ne tant que ko génne ko sama biir xol tant que yéen ñi nga xam waa revue yéenay waa revue ma wax leen ko ngeen ngeen jàmbatal ma ko duma am jàmm parce que lii dañ koo war a wax monde entier yëkk ñu xeex lii mu jeex parce que dafa metti bu dee sama kaala damay expliquer benn par benn ni mu demee man je suis man nit jigéen laa bi nga xam ne dama xale bu ndaw demuma fenn nekk sama penku ndey ak sama penku baay toog jàpp sama ñàmbur benn kilifa ci réew mi boo bu ma la waxee turam mais du ma jaar ci turam ku ma bu ma tuddee turam tey fii tay ñépp a ko xam muy kilifa ci réew mi yori mbooloo yori taalibe am jabar am yaay am ay sœur yaramam dawul mu ñëw seet si ma suñu kër xamanteeg man ci Facebook la xamanteeg man di ma nekk ak man chaque jour dama la bëgg seet si kañ laay ñëw seen kër kañ nangam kañ laay nangam ñëw surtout kër seet si ma ak samay famille xamanteeg samay famille nekk ak man ñuy génn relation di génn di génn ba mu ne ma jabar laa bëgg sama yaay ni ko ah man de yéen takk da ngeen takk di fase te sama doom dama bëgg ku ko takk téye ko. man bëgg boo takkee sama doom nga téye ko mu ni sama yaay amul benn problème comme yéen yow gëmoo li ma la wax dinaa la firndeel ni la sa doom bëgg naa ko nañ dem ba ci kanam man tamit may ànd ak moom di ànd ak moom di ànd ak moom ba yàlla dogal année bii passé 2018 le mai le premier mai non non le mars le premier mars mu woo téléphone maa ngi Dakar mu ne ma fan nekk ma ko maa ngi nii Dakar mu ne ma ñëwal Ndar dama la soxla ma jóge Ndar ma jóge Dakar ñëw Ndar mu ne ma diw ma ni ko naam mu ne ma wool dama wool ma sa yaay ma wool ko sama yaay mu ne ma sa sax mën naa wax moom góor la mais sa rus gi ma ko rus sa yaay rek mën a waxal ma woo sama yaay indi sama yaay teg ko sama yaay toog mu ni sama yaay dama bëgg sa doom te soxna laa ko bëgg bëgg gi ma ko bëgg dama la koy firndeel ni la bëgg naa sa doom sa doom bëgg na ma te soxna laa ko bëgg sama yaay ni ko ah bu dee bëgg nga sama doom amul benn problème dinaa la ko may mais man bëgguma ku toroxal sama doom bëgguma ku manqué de respect sama doom comme nee na yow la bëgg te yow bëgg nga ko defal fula te yow kilifa nga am na dugg bi génn bi bul na ko siidalee rek du rafet mu ni waaw mu ni sama yaay boo bëggee suba suba suba ma takk ko sama yaay ni ko déedéet ñun ay mbokk lañu may mbokk bu ko bu weer bi deewee fekk dafa moom programme bu mu doon dëgmal sama yaay ni ko bu weer bi deewee après dañ nga takk ko mu ni sama yaay amul benn problème ñu nekk ci weer boobu dee affaire boobu paase ñu toog di ko déglu woowuñu woowu sama yaay yóbbantewu ko waxuma dara bu ma bu ma ko bëggee bu ma ko relation boo xam ne man rek maa koy doxal duma faale duma gëstu duma lijjanti bu ma ko woowee mu gëmloo ma ni ma man xoola bébé nangam bébé dama amoon nangam yaa ma mën a comprendre man dama la naan kat dëgg la dafa am heure bu ma amee problème bay pétaar ci kawam bu ma expliquer problème am man damay noppi dootuma wax ma toog ba weer boobu passé ñu teg ci ñaari weer waxuma waxuma xanaa ku ni nit dama lay takk après avril mois de mai xanaa mai nga toog déggoo nit ki di ko woo wax ko lu leer ma woo ko di ko laaj mu ne sama jabar dafa nekk en état looloo tax boobu ba léegi déggoo ma parce sama jabar mënul nekk en état ma di la ma di ma di la wax naan la dama lay takk wala nangam ma ne ko loolu d'accord naa amul benn problème d'accord naa mu ni ma ha ma ne ko waa ma ne ko ok kon nañ bàyyi ba sa jabar accouché ma toog teguñu si une semaine jabaram accouché loolu jàll loolu jàll déggaatuma ko déggaatuma ko bu ba mu am presque trois mois quatre mois ma woo ko téléphone ni ko foo toll mu ni ma déglu ma rek damay xaar sama benn oncle ñëw bu ñëwee dinaa yónnee ma fas la def la soxna mais bu ma la takkee bëgguma kenn yëg dama bëgg ñu def ko mariage noonu après bu ma lijjantee sama kër ba pare ma ma ma mën a biral affaire ci sama xel mu gàtt ma ni man ak man ay fan fase ma may dund lu metti fu ne jaar naa fa ak moom woona ma fu ne wuyu naa ko fu ne muy kilifa goo xam ne gu mag si réew mi xool deseetuma ko sama li nekk sama xol yëpp daf koo dagg ba mu jeex muy misère di ko muñ awma lu dul barki démb ma def benn poisson d'avril ci facebook bi nekkete foofu la ko bëggoon jaarale ma dugal benn poisson d'avril ni man dama tukki mu mu mu ni man dama tukki mu message ma ni ma yow foo ma ni ko damay voyage mu ni ma ha ma ko waa mu ni ma ok amul benn problème si voyage bi waxuma waxuma waxuma ba ma dug ba ma ba ma dindi ba ma dugal benn photo si sama profil Facebook mu message ma sama profil Facebook ni ma fii de xanaa du France wala xëy na France moo tàng wax ju ñaaw ju joo xalaat bu wax ju bon di ngeen ko wax nit wax na ma ko fàtte na fi jaar fàtte na li ñu jotoon commencé woon du début au fin fàtte na lépp wax ju bon bloqué ma Facebook bloqué ma WhatsApp expliqué wu ma ni ma lii nga ma def expliqué wu ma ni ma lee nga ma def man xaw ma yaayam xaw ma papaam xaw may famille kenn te moom pourtant ñëw na fii xam samay parents ma présenté ko sama sœur samay parents samay frère amul ku mu xamul xam ko ñëpp xam damay génn ak moom dëkk bi ñëpp di ma ku ne taseel mun ma takk day nekk ak yow ba neex ko mu fase ko bu ma ko waxee mun ma dañuy fen du dëgg du benn dëgg man dama lay takk. dama lay takk nangam chaque jour ak inventé gi inventé chaque jour ak wax yi may wax te heure bu ma waxee ba teg loxoom moom bu waxee ba teg loxoom man dama naan dëgg duma ci teg baat mu souffrir loo ma ma trahison boo xam ni sama ndey mënul xam te fu ne nag yoo xam ne mën naa ko wax yoo xam ne mënuma ko wax yéena koy mottali seen xel fu jaar naa fa ak moom fu ne dugg naa fa ak moom ñëw jël na ma ma ñëw nekk Dakar ay weeri weer ak moom dëkk ak moom nekk ak moom heure bu ne mu jógee këram ñëw sama kër nekk ak man guddi ak bëccëg chaque jour mu gëmloo ma ni ma dama lay takk yaay sama jabar yaa ma ko gënal yaa ma gënal nangam yaa ma gënal nangam yaa di ma wax ay wax xam ne sama xol dafa fees del ñuy nëpp nëppal nag ñun xale yu jigéen yi ñu mel na ñoom góor ñi dañu yore seen morceau de balbasique te ñi koy def la majeure partie ay kilifa lañu nekk ci réew mi di woote ni kilifa lañu di wax ay wax yu rafet ku leen gis teg leen loo teg leen foo xam ne yegguñu fa te duñu benn kilifa di jël xale yu jigéen yu ndaw di leen utiliser. yow bëgg bëgg nga nit takk ko moom moo gën mais bul jël doomu jàmm bi nga xam innocent la xamul dara nga jël ko gëmloo ko ni que dama la bëgg mu topp la topp la topp la nga gëmloo ko chaque jour dama la bëgg dama la nangam dama la nangam mu gëm la fonk la teg la foo xam ne tegu fa sax yaayam ak papaam bi ko jur dem naa ba samay papa ak sama yaay bu ñu waxee sax duma leen dégg ndax moom. samay yaay danaan ma bàyyil kii bugg la ma ni dégguma leen gëmuma ndax moom chaque jour woowee ba tegal la ba ba wax la rek moo tegal moo bi doo def lu dul gëm ka muy kilifa ci réew mi kilifa gu ci réew mi bëree taalibe bëree taalibe ay taalibeem tey benn rek ci kooko ci wax rek mun du dëgg melu noonu te boo ko gisee danga naan déedéet kii sañul def loolu te du man kese la ko def ndax après rendre naa ko ay nit ñëw nañ ci man ni comme c'est la même la leen def kon ni nga koy def di ko defaat nii mu ma def nii pare ci man bloqué man noonu la koy defaat innocent bi nga xam ne xamul dara kon war nañu yeete mbokk jullit yi ñun ñun jigéen ñi ñun xale yu ndaw yi ñun ñu xam bu baax fi ñuy teg suñu tànk ku ñu bëgg tàkk ñu ku ñu bëggul bàyyi ñu moom moo gën ñuy jël suñu xol bi di ko fowe dañuy jël seen jabar takk ko teg ko seen biir kër duñ ko duñ ko ni laa duñ ko jibee ñoom fekk ay doomu jàmbur ay innocent ñu jàpp leen nekk ak ñoom gëm leen loolu loo xam ne génne leen seen kër ndey seen kër baay jële ay appartement nekk ak ñoom di leen utiliser di nekk ak ñoom xëy benn suba ba nga doyal sëkk xëy benn suba fàtte la dem seeti sa beneen morom di ko def di ko def di ko def di ko def par benn par benn da ngay jékki saa man damay tëdd di jooy depuis boobu ba léegi depuis bërki démb ba léegi dama jooy ba deseetuma rangoon maîtresse nag un homme marié depuis moo ko seetaane ba léegi chaque jour que je fais séquence bu daw dama ci gis sama bopp séquence bu daw li Marème di dund yépp séquence bu daw dama ci gis sama bopp ndax loolu laa doon dund loolu laa doon dund séquence bu daw dama ci gis sama bopp malendinaan ngeen tas vidéo yi nit ñi xale yi li ñuy dund metti na torop man ak samay moroom damay waxal sama bopp di waxal samay moroom am na samay copines yoo xam ne buñ la nettalee li ñuy dund ko mën sax génne wax te ñoom mënuñu waxe amuñu fit pour wax mais ku doon am na fit pour wax am na ñoo xam ne bu ñu waxoon dëkk bi toj te ñan ñoo koy def ay kilifa yoo xam ni ñi ngi si biir réew mi boo leen gisee da nga naan seen capacité tolul noonu te seen capacité weesu na lool ñu jàpp ay doomu jàmb di leen utiliser di nekk ak ñoom nga ëmb ñun la yàqal ëmb ba nga nekk naka su dul ñoon ñun la defal nii defal nii defal nii lépp ay kilifaa koy def fii si réew mi di woote ni ñoom yàlla lañu gëm ak yonent bi ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi ndax bu ñu gëmoon yàlla gëm yonent bi duñu jàpp ay doomu jàmbar ay jigéen te ne jigéen a leen sukk jur jigéen ay seen rakk seen ay rakk ñi noonu seen biir kër amuñu fit di wax seen ay rakk jigéen góor di leen def loolu di jël seen ay rakk di leen protéger di jël ay rakku jàmbur di leen utiliser di leen sànni li ñu war a wax dafa bëri lii ñu ngi koy nëpp nëppal te dafa war a génn ñun jigéen ñi ñu am fulla xam fi ñuy teg suñu tànk bu baax loolu moo ma métti woon lii moo ma métti woon tant que génnewuma ko sama biir xol vide ko duma am jàmm lii nag moo ma métti woon sëñ bi ma bëgg nga publier ko dugal ko xale yu jigéen ñi li ñuy dund métti na lool ngeen dimbali ñu ci tas vidéo yi nit ñi dégg ko ndax ndax kii ndax xale yu góor yi def yu ñaawteef yu bon yi ñu ñu ñu ñu mën leen ñu mën leen distinguer xam ñoom ñooy kan. ku ciy jigéen xam bu baax fi ngay teg sa tànk bu la benn góor nax parce que góor ñi lii rek lañ siy def ñi nga xam ne nag jaaruñu ci ñu xam bu baax fi ñuy teg seen tànk man de xaw ma keneen mais man moom yeewu naa bu baax depuis ba ma commencé seetaan maîtresse ba léegi damaa yeew bu baax parce que li li am ci réew mi rek ñu koy nëpp nëppal moom la ngeen teg nag naan émission bi dafa nangam waruñu ko teg war nañ ko teg dañ koy teg. nit ñi di ci seetaan di ci yeewu bu baax di ci jëlee lu baax parce que maîtresse un homme marié ñëpp am na ñoo xam ne ñu ngi siy jëlee ñi ci xamul dara ñu ngi siy jëlee xam nañu bu baax fi ñuy teg seen tànk pour góor bu am jabar ñëw bëgg leen daanu xam bu baax nañ koy utiliser. góor ñaa ngi dagg xolu jigéen ñi da ngay xëy benn suba gis xale bu jigéen xëy dee dara rey ko naqaru xol rek moo ko rey mu ngi toog ci benn coin di jooy suba ngoon ba xëy suba dee xale yu jigéen yaa ngi ci hôpital bi fees dell ki guwaat. naqar rek moo leen rey te góor moo leen ko teg ak i góoram góor moo leen ko teg góor ñu baax ñaa ngi fi di teral jigéen ñi di sagal jigéen ñi mais ak am na góor ñoo xam ne ñoom jël paaka teg seen pour rendi leen rek moo dagan ci ñoom moo dagan ci ñoom dara baaxul si ñoom ndax dañoo bon dañoo bon bokk bon ànd ak bon di dem te koo ci gis nag am nga sœur ci sa wet am nga yaay ci sa wet mais booy génn sa kër di dem di defi sa yaay du la yëg sa jabar du la yëg boo ñëwee nekk ak xale bi ba sa xol sedd booy ñibbi sa kër lan nga koy wax suba maa ngi ñaan bébé naa nga boo demee sa biir kër bloqué nga ko wala coupé nga sa téléphone dootu la mënati jot man dama koy dund ndax damay wax ak sama copain bu ñibbee këram dootuma ko dégg daf may bloqué dootuma ko dégg bu ma ko woowee ni ko bébé lu tax nga dé lu tax yow ma lay wax mu ni sama kër moo am réseau chaque jour loolu la may fen sama kër moo amul réseau aw ma réseau nangam dugg na fii bébé yow xam nga nangam yangam nangam chaque jour ak inventé bu dees bi may indil te heure bu ma tegalee inventé rek man dama koy gëm kon li ñuy dund ñun jigéen ñi metti na lool te jigéen la moo ko suturaal ku ñu suturaal yàlla suturaal la ngir yàlla war a xale yu góor yi nga xam ne dégg nañu vidéo bii ngir yàlla war a bu dee am ngeen ay rakk xool leen ni ngeen di comporté woo ak ñun boo leen nu bëggul bu leen fowee suñu xol yi bàyyi leen ñu toog ba gis ki ñu bëgg parce que fii koo bëggul rek am na keneen koo xam ne bëgg na ko ngir yàlla war a suuli kilifa yi ngeen toog am ngeen jabar ngeen yem ci seen jabar te bàyyi ñu ngir yàlla war a suuli